ne Sénégal avancé avancé avancé xalifa la ñuy topp Sénégal avancé xalifa la ñu àndal ñun ñi xalifa la ñu àndal mottali yéene la ñu àndal ñun ñi xalifa la ñu àndal mottali yéene moom lañ bëgg ndaw ñi moom lañ bëgg moom lañ bëgg jigéen yi moom lañ bëgg moom lañ mag ñi moom lañ bëgg ku bëgg Sénégal xalifa ngay bëgg wuyoo nga sa tuut doy nga kilifa waaw soxlay Sénégal moo la yilifa xalifa ci xool dara xaju fa ndox xalifa ci xool dara fayu ko waaw buñ la rek bu dul dara buñ la gisee rek suñu xel yi dal kon boo fa indee lu mel ni tey wax dëgg yàlla ah xanaa ñu ñaanal leen rek yàlla yàlla mi dara wul mu jàppale leen ci ba lépp lu ngeen ci bëgg yàlla nañ ko yàlla may. amiin amiin eh, wax dëgg yàlla de yow da ngaa bokk ci dëkk bi eh, li fi xew bëri na mënuñu ko wax yëpp waaye lima ma leen di wax daal dal leen ak jàmm fii seen dëkk la fii seen gox la. kon ñoo ngi leen di ñaan rek yal na yàlla yombalal yëf yi. amiin ba ñëpp kontaan dimanche. incha allah incha allah kon uh, maa ngi leen di dalal ak jàmm. leen wax ne asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu jërë ngeen jëf. Hélène Tine ñu ngi lay wax ne ñëwoon nga fi ñëwaati fi ñëwaat fi tey jii li nga fi wut na yaa ko xam yal na la ko yàlla may. ñun jigéen ñu kee saxaat dañu sonn ba fa sonn yem. su sonn sonn te sonn sonn nañu amuñu liggéey tumuranke nañu amuñu ndox bu baax amuñu courant amuñu dara jigéen yaa ngi nii sama ginnaaw jigéen yaa ngi nii ñu ngi ne dañuy dem ba aéroport bu uti fóot taximaan yi ñëw di ko fóote fii chaque jour ñi mën a dem dem ñi mënul dem toog dañoo bëgg nag ku ñuy jàppale te yàlla rek a tax ci barke sëñ Babacar Si mu ñu yaakaar la bëgg Hélène ñu ngi lay déglu yaay suñu kanam yaay suñu ginnaaw yow la ñu yaakaar xam naa ne fàtte wooñu ndax ñëw nga fi ñëwati fi ñëw nga fi ñaata yoon nga duñu nemmeeku xam naa ne doo ñu fàtte waaye jigéen lañu say ñii say doom lañu ñii say moroom lañu ñii say rakk lañu dénk nañ la suñu bopp xam naa ne sonn nañu ñu ngi sàkku yërmande ci yow nga yërëm ñu sonn nañu torop wasalaam nekk fi jigéen ci samay càmmiñ nekk fi doom ci samay mag nekk fi euh, xarit ci samay naataango jigéen maa ngi leen koy wax li fi xew yëpp xam naa ko mënoon naa yëgle ne maa ngi ñëw maa ngi koy jéggalu ci chef de village mais yëf yi liggéey bi moo moo xat moo jàmp moo tax jotuma leen wax ne maa ngi ñëw mais kuy ñëw sa kër ah bu la neexee it bañ a tàggoo boo ñëwee nuyu say kilifa donc chef de village nuyu nañ la jël nuyoo bi nga jottali ñu ko ñëpp ñu paree ñu dem ziar imam tamit di leen wax ne li ñu tax a jóg nag mooy liy xew dimanche fii ak ginnaaw suba mooy wote yi ñu jëm a ah, ñu nit bu ñu ñëwee di wutal askan wi di leen jooyali di leen ñaanali bu ñu gisee suñu càmmiñ suñu xarit bu am ay jikko rango jikko yu mel ni jikko turandoom muy xalifa ababakar Sall te ñu am yaakaar si moom xam ne lu mu wax du dañ xam ne bëgg na jàmm nitu jàmm la xam ne yërëm na askanam moo tax lu ëpp ñaar fukki at ak juróom a ngi nii mu nekk si lu ne dal ko tëj nan ko netti ati kaso ñu fal ko meeru Dakar ñu nangu ndombo tànk meeram ñu fal ko député ñu nangu ndombo tànk députéem ootewul xeex ootewul reyante ootewul defante mu muñ ko teg ko ci loxo suñu borom ba mu jeex ba yàlla tudd tey mu nekk candidat xalaat nañ ne kooku buñ ko fi tegee senegal Sénégal dinañu indiwaat jàmm ci dëkk bi dinañu yërëm askan wi te ñu taxaw ci soxla askan wi man nag ci soxla askan wi laa mos a taxaw moo tax ma xam leen moo tax ma xam fii moo tax ma xamanteeg waa tund wi yëpp loolu ñu doon doxal askan wi te yoruñu pouvoir dañu bëgg ngeen jox ñu pouvoir bi ñu ànd ak xalifa bu ëllëgee la ñuy ñaani di ko jooy ñu jëf ko gox bi nag li fiy metti yëpp jarul chef de village ma ciy ñëw yow xam nga ne xam naa ko ba kër gi xam nañ ne xam naa ko te bu ko xamee mel na ni xalifa xam na ko réew mi nag ñi koy laaj tey ñetti façon lañu benn façon bi mooy borom fas wi nga xam ne fukki at ak ñaar ngi nii ñuy gubal fasam di ko wëggal di ko dundal te ñun ñuy gën a sonn fas woowu moo fi taxaw ndax di ngeen tegaat fi fas wi beneen bi mooy xale yu ndaw yi nga xam ne suñuy rakk lañ ah respecté nañ leen suñuy rakk lañ suñuy doom lañ waaye xale yi dañu bëgg ñu jàngiwaat ba mokkal ñuy doog a ñëw laaj fekk ñu defaraat réew mi indiwaat fi jàmm boolewaat xol yi ñetteel bi mooy ñi nga xam ne nag yàgg nañu dawal xam nañu dawal am nañu permis am nañ yërmande bëgg nañ jàmm ñooña mooy Khalifa Ababacar Sall ñu bëgg ngeen wotel ko bu subaa li leen di metti ci koñ bii te ñu ko doon dox ànd kook yéen li ma ci gën a metti man mooy lañu xaati moon bàyyiwuñu say juma bàyyiwuñu say sët bàyyiwuñu sa aada cosaan bàyyiwuñu sa kër buñ la indee fii ñu war la toppatoo te toppatoo googu nag moom lañ deful te loolu bokk na ci li ma gën a metti ndax ci ñi taxawoon wax ak yéen ba ngeen nangu ba ngeen nangu ñu xaatim ba ngeen ñëw toog fii chef de village xam nga ko am na ñoo xam ne maa dugal seen bagage ci sama oto bii indi leen ba fii ñu sanc pour bëgg jàmm moo tax tey nag ñu bëgg ñu jóg ci wax jooju ñu fexe ba suuf si ngeen dëkkee mu nekk seen moomeel ñu jox leen ay kayitu kër kenn bañ seet toog di ñëw di xool seen kër na ñoom seeni ay parcelle la loola bëgg nañ ñu régler ko man daal li ma leen ama wax mooy man du ma dugg ci caaxaan xam ngeen ko ndax ba may ñëw di dugg seen dossier da ngeen ma ne dossier bii ku gëmul yàlla du ko le loolu ngeen ma wax ba ngeen nekkee fee ndax ku ne dugal na ci loxo mosul rek le man leen bu dee loolu rek tëdd leen nelaw ñun wutaluñ suñ bopp buñ doon wutal suñ bopp nguur gu ne di ngeen ca bi waaye ñun askan wi lañ àndal yàlla moomu ñu gëmoon nag moo fi ne ba tey moom lañ bëgg ngeen ñaanal yu chef de village ñaan yeneen maa la koy dénk dimanche yàlla may ñu ndam ñu ñëw taxaw fii ànd ak yéen lijjanti problème mu gox bi maa leen di gërëm di leen sant. lañ bëgg ndaw ñi moom lañ bëgg moom lañ bëgg jigéen ñi moom lañ bëgg ku bëgg Sénégal xalifa ngay bëgg. avancé avancé ñun xalifa la ñuy topp Sénégal avancé avancé avancé ngir motali sunu yéene avancé. daal xalifa ngay bëgg ngay bay dunde bay dundal bay jëriñu.